man est-ce que bàyyi tamit jël gaal gi dafa man dama war a bàyyi de instant sensation bu bu cité li ko dal moo ma dal quoi la mais ma war a bàyyi làmb de man tamit dama a bàyyi bii na sinoo de euh, encore une déception bu xamante ne am nañu ko tey mbokk yi wax leen asalaamaaleykum wa rahmatullah je pense tey li ma jot si ay appel bëri na li ma am ay message vocal bëri na gis naa seen Instagram donc pour koy def benn vidéo quoi ñu mën a jàll si leen passer à autre chose parce que à qui la faute lañ may poser question la moo tax Sofiane Diop ñëwul Euh, ñeneen ñi ñe bul dal Aliou Cissé Aliou Cissé yoonam ne ñeneen Aliou ñeneen la fédération bi la pour man la foot est partagé bu ñu jëlee benn kàddu mooy que Sofiane Diop bu bëggee dëgg dëgg ñëw Sénégal day ñëw Sénégal maanaam bu fekkee rek a ñor trop dina ñëw loolu moom dañ koy tegee boor un te Aliou Cissé la fotee Aliou li laa ko doon bañal li ma ko doon bañal mooy bàyyi di waxtaan ak parents yi c'est vrai que ñun nu ñu yoree boo duggee si kër kilifa gi ngay waxal

affaire bu boo ko xoolee angle boobu da ngay juum boo xoolee beneen angle bi tamit da ngay rey sa bopp mooy ñun ñooy Sénégal faalo ñu dara ku bëgg ñëw nga ñëw du ma daw ci ginnaaw kenn loolu tamit da ngay da lay réeral loolu mooy yow à ce rythme boo leen bëggee Aliou Cissé def loolu noonu Sénégal dina perdre ay joueurs yëpp Malick Thiaw dem na. parce que nee nga ah garaaw lu yor na ay défenseurs yu baax daan dooy dem na nee nga parce que am na ay ailier yu baax euh, Andy Diouf ak Habib Diarra dem nañ am nga milieu terrain yu baax Soufiane Diop dem na. Aboubacar Koyta moo ngi dem fële Mauritanie parce que nee nga am nga ay joueurs yu baax ak beneen joueur Arouna Sangaté moo ngi la Havre parce que nee nga am nga yenn joueurs à ce rythme là on risque de perdre suñu joueurs yëpp nag ñun aussi man man si ginnaaw naan ku bëgg a ñëw ñëwal noonu man man am naa ay joueurs ay éléments offensifs ak Adli bi jógee na Leverkusen ñëw fa Arit moo ngi fa Ziyech moo ngi fa am naa ay éléments offensifs yu bëri nañu waxante dëgg ñëppaa ngi def du di renforcer ngir yàlla waa Mali ñoo ngi jéem a renforcer waa Côte d'Ivoire renforcer nañu ay buggaa keneen ak keneen ñun nag c'est l'arbre qui l'arbre qui casse la forêt mooy lan mooy li ñu gagné petite catégorie ak coupe bi ñu gagné te coupe bi suñu borom xëy na ñi juddoo fii am nañ si wàll mais ñu juddo fii am nañ si wàll de Edouard Mendy jàppal ne la plante yi de Abdou Diallo dugal ne la bii de xam nga Koulibaly mbëkkante na de nii k Sadio Mané defee nii ko nii beneen gànn gi defee ñëpp a am njariñ mais à ce rythme là bu fekkee nii la ñuy joué parce que man Aliou dama ko doon bañal mooy lii Aliou da soxla joueur waxal ak joueur bi Aliou bul gësati joueur def nii nga def Assane Diaw Assane Diaw non kii mënul joué Sénégal yow noo def ba am Keita Baldé noo def ba am keneen ak keneen keneen boo amee réflexion non kii day comme que moom Espagne la juddoo euh, Espagne xalaat ñu ko mais boobaa entraîneur bu Maroc mën na def noonu ne man la laay wax ak Lamine Yamal am ci moom yaakaar on la waa Maroc ñoom ñu am tous ces informations xam am kii euh, espagnol yi ni ñu tegee seen bakkan si Lamine Yamal ñu koy jéem a convaincre pour mu choisir euh, Maroc pendant que ñuy def loolu kañ fu ñu con fu ñu jéemee convaincre Lamine Yamal Sofiane Diop on n'en parle pas Brahim Diaz bi nekk Real Madrid ñoo ngi wax ak moom ñu nekk Sénégal l'arbitre qui casse la forêt c'est les trophées ñuy xamante ne jël nañu ko ñëpp a ngi defaru attention gars yi ñëpp a ngi defaru ñëpp ñoo ngi defaru def seen équipe que ça soit Nigéria Côte d'Ivoire Algérie gur yi gis ngeen ko bu ngeen bu ñu dégg Algérie Algérie bu ñu dégg bi passé fii amical stade Maître Abdoulaye Wade ak Algérie bu ñu dégg final du benn ñu bëri nekkuñu fi ay Guédiawaye keneen ak keneen xam nga donc euh, manqué nañu sa ay joueurs mais dañoo am ay nouveaux joueurs ñun nag ku bëgg a ñëw daal yaay ñëw ñun ñooy Sénégal ñun daal ñoo boo bëggee ñëwal boo bëggul sa affaire la waxuñu encore une fois pour Sofiane Diop mais on parle pour le futur. parce que aussi Aliou Cissé boo dégloo yenn supporters yi xam ne naan non yooyu yaay Sénégal ku bëgg a ñëw na ku lii na xoolal sa avenir ëllëg da war a am beneen équipe équipe bi day dafa sant maanaam du si si jeexal yu dem que ça soit Gana Kouyaté Sadio Mané keneen ak keneen da nga war a tabax équipe boo xamante ne Pape la Nicolas Jackson la ak boy yi war a ñëw Assane Diaw mi keneen ak keneen mais à ce rythme laa nag nañu continuer nii ñu perte joueur yëpp man je ne parle même pas pour Sofiane parce que Soufiane Diop la su bëgg a dégg ñeneen dinañ la wax ne non dafa imposer titulaire à euh, parce que choix am ah, pour wax leen dëgg choix am entre Maroc et Sénégal c'était numéro un Sénégal mais nag comme li ma koy waxee kii topp si yow di wax ak ki xamante euh, day jaar si ay papa ak nijaay saa mën ñu am résultat ki nga xamante du monde ba tey parce que waa Maroc bu ñu neexoon ñu position bi ñu taxawee ñu taxawee noonu ne man maay am na de bons joueurs qui sont dans dans équipe yu baax Harit ñàkk naa ko te teewul def naa performance en coupe du monde Adli c' est jeune boo xam ne Toulouse la nekkoon Leverkusen ma jël ko mais ñoo ngi jël tous les bons joueurs di tabax seen équipe parce que lan lañ bëgg dañoo bëgg euh, benn objectif gagner la la CAN waa Côte d'Ivoire isim seen i joueurs yéen a gis du leen wax joueurs yi fa nekk Seko Fofana ma boo ko amee milieu terrain rek affaire bu doy waar la sans compter ah am Ousseyn Awaar ku nekkaa ngi renforcer ñun ñu toog fii rek bu ñu gis nga ñun ñëpp bu ñu dajaloo def benn say naan ku bëgg ñëw Sénégal nga ñëw ñun ay patriote lañu ñun ñii bëgg man li boo waxee Soufiane Diop wala nga wax Pathé Ndiaye dafa mel ni da contre Lamine Camara wala da contre Pathé Pamara Sarr wala contre Cheikh Kouyaté mais kuy kuy xalaatee noonu gàtt nga xel quoi. amuñu benn intérêt di bëgg Lamine Kam gën a bëgg Sofiane Diop Lamine Camara xanaa Lamine Camara njariñ bi moom mu ñu mën a amal dëkk fii Sénégal ñu mën a dem këram mën a dem kër yi beneen ab sénégalais moo ñu ëpp njëriñ fu Sofiane fa euh, benn waay bu dëgg fële amuñu ñun ndam la ñu bëgg gis nga ma wax leen ko fii te xam ngeen ko bu baax Coupe d'Afrique bi bu ñu ko gañee bi passé am nañ ci rôle de wax nañu joueurs yu bëri yu ñëw bu Boulaye jaawoo ñoom ñëpp te lii Abdou Diallo def noonu ñëpp duñu ko def maanaam Abdou Diallo moo jël ay initiative am dox defar ay papiers am ñëw Sénégal loolu mënoo ko am chaque jour nañu waxante dëgg loolu mënoo ko am jour c'est vrai que joueurs yi fauté nañu joueurs yi seen binu suñu boo leen mën a gis choix am numéro un mooy far fi mu juddoo France la ñoom ñëpp nag quelques jours ñoo si nekk ñu xamante ne genre ay genre xaw Iliman Ndiaye muy muy Koulibaly muy ñoom ñëpp muy nga dem Maroc rek Maroc nga dem Algérie foo mën a dem ku si France woo nga dem boo demee ba xam nga amoo possibilité France ngay ñëw choisir fii loolu nag bu ko jëlee mbalit bu ko jëlee ñàkk fayda jëlee que ne rek da bëgg a gagné jëlee que ne yow da nga woon Bouna Sarr à un moment donné da soxla nga jël que loolu rek la loolu rek la affaire de gagné la dama soxla woon Nampalys à un moment donné moo waxoon li mu waxoon a ba ñu nekk si cappaandaw gi ba ma posé Aliou Cissé mu ne ça avance bien mais bon ba pare ma ma sama gaañ la mu nekk di côté de Nice je me rappelle mu ngi fàttale ko loolu xam nga moom noonu wax Sofiane Diop dama ñëw man jàppoon naa ne franchement day ñëw sama njort bu rafet loolu laa jàppoon mais kii di kii kii xamante ne day ñëw di wax ak nit ki xanaa jigéen sax boo ko bëggee keneen ki topp si topp si keneen ki xam dafa toog tëdd ne est-ce que kii keneen ki mooy am résultat résultat bi

changé leen seen stratégie ngir yàlla DTN bi laay waxal bu baax a baax Augustin changé leen Aliou Cissé dafa la nekk un équipe sélectionneur c'est ñëw toog match Sénégal nga ñëw sélectionné jouer sa match toogaat 6 mois t'as un très bon salaire defal ay kii na tuddee sax euh, ay voyage en Europe xam nga donc repérer yéen booy waxtaan ak ñoom convaincre leen fu Maroc waxee fu Maroc fu mu waxee Birame Diaz ak Lamine Yamal mais ngir yàlla wax ak Assane Diaw waxal la yeneen joueur ñàkk nga Malick Thiaw ñàkk nga Ferland Mendy et c' est depuis depuis Bafity Mbigomis on perd beaucoup de joueurs joueurs yu bëri ñoo ñëw parce que ñoom ñoo def choix bi wala à un moment donné ñoo jaar seen parents ñu ñëw facilement sans problème mais nag lii ça a échoué et suba war ñu dalaat mbokk yi mu nekkoon vidéo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen su Senfootball TV.